Sénégal du defar ay tali priorité Sénégal du defar corniche du defar ay pont du defar ay échangeur à Dakar priorité Sénégal mooy créer ay jumtuwaay yoo xam ne da nga koy jox mbéy mi nga développer les ruraux loolu moo tax ñun bi ñu ñëwee xam nga tey jii man xam naa programme PDS ndax seen président consulté na ma du benn du ñaar ma jox ko ay solution ci yu bëri donc xam naa ñoom seen programme mais ñoom ñoo xamul suñu programme ñun dañu am programme bu tudd yoonu yokkute même même yoonu yokkute yoonu yokkute bi yoonu yokkute bi ci ñetti priorité lañ ko teg hmm. priorité boo ci jël hmm. majorité la ci population wax ma ko limal ma ñett benn bi mooy la jeunesse 68 hmm. pour cent de la population au moins de vingt cinq kooku ku faj seen aajo faj nga la majorité de la population sénégalaise. beneen bi mooy les ruraux 64 pour cent des sénégalais ay ruraux la ñu ba 70 pour cent des sénégalais ay ruraux la ñu ñooñu ku faj seen aajo faj nga population majorité bi. nga dem ci soxna yi. soxna yi ñoo ëpp Sénégal. 52 pour cent. Sénégalais yi ay soxna lañu. bon ñun ñetti priorité yi. moom lañu nag jël parce que li muy wax nii. Mhm. daa jàngul suñu. suñu programme ndax suñu programme basé wuñ ko ci mm. ay promesse électorale man sax damay wax gars yi mm. amuñu programme solution la ñu am mm. ci naka mm-hmm. c'est très simple ñun dañu ne dafa am ay problèmes yu ñu fi fekk yaa ngi noté état bi bu baax état bi ni ñuy dundee mm-hmm. dafa metti mm-hmm. téléphone état bi rek vingt milliards la téléphone yi état bi yor vingt milliards lañ ciy fay. vingt milliards par at vingt milliards at. la ñuy fay. mais suñu ñëwee dañ koy dog. muy benn. nga jël cent ministres ak lu topp ministre ministre conseiller. Mm. mais suñ ko wàññee ba ñaar fukk ak juróom. Mm. dina am lu des si xaalis. est-ce que loolu engagement ferme la vingt cinq ans ah, ah, mais tu verras le soir tu verras bi suñ jëlee nguur bi. Mm. te xam nga lan la ñu xamul. ñoom dañu defee ne xaalis bi ñu jël yëpp. ci réduction du train de vie de l'État déedéet loolu 10 pour cent rek la. dañu ne suñ ko réduire. xaalis boobu 10 pour cent lay représenté. mais am nañu 53 pour cent. boo xam ne xaalis. ak 33 pour cent yoo xam ne dañ koy tirer ci croissance bi nga xam ne moom la ñu stimuler économie bi mu jóge fa. très bien 37 pour cent encore. 37 mm-hmm. pour cent yi ci tegu. Mm-hmm. ñu ngi koy jëlee ay prêts ak ay dons. Ah, très bien ay li ñu wax yëpp ay déclaration d'intention la. mais ma ma laaj la est-ce que fi mu nekk nii euh, jàpp leen ne yéen seen programme donte infrastructure yi baax na. Mm-hmm. am na lenn loo leen war ci dunduk sénégalais yi. ñu mën koy parce que sénégalais yi dañuy wax ne. toir fa kàll macha allah pont yi. Mhm. tëli yi waaye kenn du dajji goudron di ko lekk. waaw dëgg la mais dama ni la euh, boo seetloo ci secteur yëpp. Mhm. élevage comme ni mu ko waxee agriculture. jeunesse Abdoulaye moo jeunesse defe naa li ñu def ci wàllu jeunesse kenn mënu ko naatable. Mhm. loolu mooy il faut que nit ñi dem ci biir résultat yi ñu xool lan lañ fa jot a def ak lan lañ fa deful su ci femmes yi lan lañ fi deful. lu nekk def nañ ko fi pour mën a jàppale jigéen ñi xam nañ ni ñoom ñooy majoritaire à 52 pour cent donc sur le plan de la jeune Abdoulaye li mu def pour les jeunes kenn mënu ko imaginer dem na ba def emploi pour les jeunes dem na ba taxawal ay office yu toppatoo affaire jeunes yi même dans la banlieue ci wàllu infrastructure yamul Dakar kese pont yi da ngay dem même ci biir comme ni ma ko waxee zone rurale yi infrastructure yi ñu nga foofu électrification rurale ainsi de suite mhm. ñoom seen programme yëpp bu ñu ñëwee dañuy wàññi ceeb bi mais duñu wax jamais comment comment xam nga xam nga xam nga boo ñëwee nga ni boo ñëwee nga ni 20 pour cent 30 pour cent c'est facile. mën naa d'accord nga d'accord nga ak Sénégalais yëpp ne train de vie de l'état bi métti na. Ah, mais xam nga xam nga Diouf nee na sànq nekkoon na conseiller du président Diouf comme tous les acteurs de la coalition mere waat problème personnel moo indi seen coalition mais programme de gouvernance moo amul programme de gouvernance bi yëpp dañ naan la am nañu ay solution léegi nañu expliquer ñoom concrètement nan la ñuy def léegi moom dinaa ko laaj ba wàññi dund bi ceeb bi ma laaj la est-ce que yéen mën ngeen wàññi ceeb bi. mais dama ne la ceeb bi affaire habitude de consommation la. Mhm. il faut que sénégalais yi dellu ci la nga xam ne la ñuy bay di ci dundee bu ñu bëggee suñu niveau de vie. taxaw il faut que ñu xool suñu habitude de consommation tey nii bu ñu amee habitude ñun di jënd riz importé mais le riz importé dafa cher pourtant oignon bi mi ngi fi soble bi baa ngi fi war nañ ko mën a consommer riz de la vallée mi ngi fi c'est pas cher war nañ ko mën a consommer donc état day def ay efforts parce que dafa am crise internationale di subventionner yenn denrées yi pour que ñu mën a maîtriser les prix mm-hmm. mais nga ñëw en face daan man su ma li ñuy wax des dents longues am lu ñuy laaj di daal seen ay paaka di xaar fan la ñuy taxaw. mais nag xam ñun xamal la je pense que nañ jël engagement je pense que blocage blocage weesuwul. Mhm. Sénégalais yi tànn Macky Sall parce que chaque jour moo ko valeur intrinsèque l'homme kenn kenn mënu ko critiquer man liggéey nañu xam naa ni ku am pastef la ci li muy def mais ñi ko wër ñëpp bëgg dara tout de suite du mën a gouverner du nekk ci stabilité parce que ñi bëgg dara ñëpp wër ko mhm. tey ni 14 13 candidats yi la wër. Mhm. comme am deux voix sax danaa la léegi man man maa la votel man maa la fal donc coalition bi ñu taxawal nii amuñu programme bu ñu mën a proposer en alternative pour remplacer li nga xam ne def nañ ko. mais train de vie de l'état bi tontu est-ce que d'accord nga ci dafa métti. dama ñu la train de vie de l'état. Mhm. xam nga tey nii ñoom bu ñu nekkee opposition mais pourquoi duñu wax responsabilité de Macky Sall pendant huit ans ci biir gouvernement am na ci rôle bu mu ci joué kenn du ci nangu wax. jamais donc man mënu ma nekk ci benn gouvernement boo xam ni comme ni nga ko waxee y' a 100 ministres ma nekk premier ministre démissionné wu man du nangu ma nekkoon premier ministre Abdoulaye Wade mu ne ma jëlal 100 ministres alors que man dama am souci d' économie damay démissionné su dee nanguwul li ma ko wax. <laughs> donc mënoo nekk ci biir accepté lépp. une nga génn nga commencé bañ lépp c'est pas possible da def choix. mer ngemb waaw <laughs> moom la wala wax léegi. ci loolu nga engagement yoo leen jël ci denrée yi. expliquer wala nga expliquer ko moom moo ko bëgg a xam. waaw dama bëgg mu leer ci Sénégalais yëpp tëbuñu di def ay promesses électorales dañu ne mun nañu wàññi mun nañu wàññi ceeb bi mais lu loolu lu yomb la xam nga tax mu yomb. Mm-hmm. mais lan moo waral fiscalité yi ñuy def ba ceeb bi yokk mooy ay tax yoo xam ne ñi fi indi ceeb bi dañ koy teg seen doq yi. ba ñoom tamit ñu yokk ceeb bi ngir am ci bénéfice. taxes yi état bee koy teg. wala bi moo koy teg. ñun dañu ne ñooñu dañ lañ koy yombalal suñ koy yombalee ñi nga xam ne ñi ngi importer yombalal seen taxes yi ndax mais ñoom lu tax ñu soxla taxes yi mooy train de vie de l'État dañu soxla xaalis parce que dañu jël état boo xam ne politiciens yëpp lañ ci dugal xam nga li ñuy jiiñ ñi ñoom ñoom la ñu def mais quand tu plus de cent ministres conseillers ministres conseillers ministres d'État et cetera lu musul am Sénégal mais di nga leen jox salaire salaire boobu nag ñu leen jox ak seen train de vie moo tax taxi yi cher au Sénégal bon je pense que ku xalaat tuuti kuy réfléchir tuuti war na xam ne ñun suñu jëlee engagement ne dañuy wàññi train de vie de l'État dina yomb ñu mën a wàññi ceeb bi ndax taxi yooyu dootuñu ko mën a soxla loolu dama bëgg mu leer parce que ñu bëri moom mii ak ay moroomam foo ko fekk ñu ngi wax ñun dañuy joxe ay promesse promesse yi ñuy joxe ci ñoom ni ñuy dundee la ñuy wàññi dinañu wàññi lépp loo xam ne charge la dem nañu ba nga xam ne sax jël nañu ay engagement suñuy ministre kër ya ñuy dëkk ñoom ñoo koy fayal seen bopp yooyu yëpp ci ay engagement yu ñu jël mais xoolal tey jii combien de maisons de l'État moo fi nekk xoolal par exemple un ministre carburant am loolu dañ koy wàññi dañ koy wàññi ba nga xam ne xaalis boobu su ñëwee mun nañu wàññi fiscalité bi ba ñuy importer dootuñu am doqlu li si ay taxes est-ce c'est pas épicier aussi quelque part non c'est dañu toog. Mhm. ñu def ay chiffres yi. te bés bu ñu amoon jot dinañ tegal la chiffres yi ay woy màcc yu ci économie ay ñu xarañ ci wàllu économique denrée import export. Mhm. la ñu toog ñu def étude boobu donc lii du ay waxu lépp du ay wax tamit électoral. Mhm. muy benn deuxièmement aussi dafa ne responsabilité Macky mais il l'assume. Macky Sall a assumé ses responsabilités quand il premier ministre il l'a assumé mais li ko dal mooy la injustice la ñu teg loo xam ne xëy na moo ko yee mais problème bi mooy bañ a changé problème bi tamit mooy nekk ci benn structure boo xam ne da ngay nax peuple bi mais su la ci yàlla seppee nga sant yàlla Macky Sall yàlla moo ko dimbali ba mu génn PDS yàlla moo ko dimbali ba mu ubbi bëtam. xam ne ñii jaruñoo àndal mu jël ses responsabilités créées par thème ba egsi fii injustice la. Mhm. te je pense que injustice boobu même rek Pape. Mhm. parce que dafa wax lu lu am solo. injustice boobu tey jii moo ko teg fii mu nekk Macky Sall injustice moo ko indi fii mu toll. te injustice boobu ci ñoom la jóge et je pense que koo xam ne dafa subir injustice boobu dina am xolu bañ a tegati beneen injustice keneen en plus li muy wax ci affaire wu euh, borom bëñ ñu guddi yeeg yooyu amul kenn koo xam ne tey jii et je te le dis solennellement ici mhm. devant les Sénégalais amul benn coalisé bu ñëw au deuxième tour wala au premier tour signé ak Macky Sall ne su jëlee nguur gi post bii la lay jox wala poste bi la en commençant par mois et je l'ai dit tout le temps mun nañ la fal le vingt cinq le vingt six ma jël suma avion delluwaat États-Unis jàngalewaat te man ak suma moroom yi ñëw ñëpp jàppale Macky Sall c'est le la même chanson. Mhm. ñu dara loo xam ne. Mhm. négocier nañ ko parce que su négocier doon am man mi nga xam ne candidat déclaré la woon au premier tour. Mhm. bàyyi ko pour l' intérêt supérieur des sénégalais. ñëw jàppale ko. ñu dem au deuxième tour su fekkoon may ma ma continuer su fekkoon te ji ay négociation la man maay toog fii di la wax négocier nag mais amul kenn ñun ñi ñëw au premier tour ñi ñëw au deuxième tour amul benn convention wala règlement wala deal boo xam ne Macky Sall jël na ko au non de la coalition ne ku su jëlee nguur gi léegi lii donc loolu ay wax wax yu mal placé. dama la joxaale benn laaj. naa suñu xarit yi nekk ci tuto bi ñu ngi dugal ay laaj yu bëree bari xam naa loolu damay bàyyi bu ñu dawalee ba ci kër ma tënk yu bari jox leen ko lu tax Abdoulaye Wade ne mm-hmm. ku fi falu mm-hmm. ñaari weer dootoo mënati fay salaire est-ce que loolu du aveu d'échec ci moom mm-hmm. parce que moom ba muy ñëw dégg naa ko premier interview am 2000 dafa ne Diouf m'a laissé les caisses de l'État pleines d'argent moom mu ne ku falu deux mois doo mën a fay fonctionnaire yi. fan lu tax mu wax loolu. waaw léegi Pape dama ma permettre balaa ma. bien sûr balaa ma la ciy tontu. Mhm. Euh, defe naa ni euh, Diouf dafa confirmer li ma waxoon donc injustice la Macky Sall subir moo tax mu créé parti. Mhm. du projet de société moo ko indi pour mu mën a taxawal nekk en face nekk candidat. comme li ma wax mhm. rek comme ñu nekk ci coalition bi yëpp ay alliance de circonstance la ay ay solution momentanée la dañoo jug parce que dañu génne. waaw ah non waxuma waxuma réalisation. pas une réalisation voilà ñun ay réalisation am na ku la posé benn question fii si tutelle ne ndaw ñi dama ni dama ni ndaw ñi mhm. liñ ci réaliser boo ko limee fii ngeen waaru ci yàlla mais toujours chômage baa ngi gën a yokk waaw dama ni la parce lu waral population jeune la renouvellement de de de de population bi yëpp jeunes yi ñoo ëpp importance ñoo gën a bare. ci wàllu xayma donc état bu effort mën di def tamit il faut toujours nga defaat yeneen effort pour mën a faire face à la demande. à mhm. pour les jeunes. mais ci wàllu emploi pour les jeunes yi création d' prise en charge ministère de la jeunesse pour toppatoo affaire jeunes yi kese FNPJ amu fi woon avant tey nii projet boo mën a dem nga dem au niveau de la toppatoo la lu ñu financé ci projet jeune kenn mënu ko xayma donc def nañu lu ñu mën ci wàllu jeunesse mais renouvellement population bi mooy tax que lépp mën ta sotti tey ci benn ci benn fan mm-hmm. donc confirmé na Diouf que ni ñoom seen contestation yëpp injustice moo tax mu nekk deuxième tour finalement ku créer parti c' parce que da nga am règlement de compte personnel vis-à-vis du président dañ koy bañ a wax mais ñu dañ koy wax dama la réalisation. ñu ngi am voilà ay mais <laughs> mu waxoon ci kees yi lu tax mu wax loolu. waaw xanaa kees yi xaalis daf ci nekk. dama ne la euh, bi régime alternance amee. xam nga boobu ak léegi 12 ans jàll na fi. Mhm. tey nii Sénégal dañu investir ci ay infrastructures mais aéroportu Diass. investissement la boo xam ne dafay rentabiliser wu dans quelques années investissement la bu am solo boo xam ne dafay délocaliser aéroport yi dafay rapprocher euh, les population vers beneen centre d'intérêt wala centre d'affaires dans quelques années ça rapportera beaucoup d'argent à l'État du Sénégal mhm. nee naa la tali yi ñu fi defar defar pont yi ñi nga xam ne bëgguñu pont ak tali dans quelques années dina am incidence ci panier de la ménagère parce que temps bi ñu daan perte ci Dakar temps bi ñu naan perte ci jóge gox ak gox tali yi ñu defar à Thiès les chantiers de Thiès li ñu réalisé ci Sénégal yépp ba Médina Diatbé pont yi ñu fa defar ak fu nekk day am incidence ci économie bi parce que si on gagne du temps on perd moins d'argent mais est-ce que foofu. Hmm? Euh, parce que man damay jàpp ne. Euh, soo waxee ne dina am incidence ci Pagnement d'accord naa. Hmm? mais comme Sénégalais yi dundagun ko léegi. moo tax tamit duñ sawar nga tey contexte de crise bi. Hmm. Abdoulaye parce que parce que dafa am ay crédibilité mooy maye milliard crédibilité la Wade moo ko may bu demee à l'étranger kenn nee na ma benn jour day voyager man la justement voyager wul pour def tourisme wala pour visiter ay pays dafay voyager pour trouver ay partenaires ou développement dafay voyager pour dindi mbuumu njaam bi nekkoon ci Sénégal nga xam ne benn pays rek laa am droit liggéeyal. Mhm. aujourd'hui le Sénégal am na droit am na possibilité et on le fait réellement. Mhm. am na nañu partenariat ak plusieurs pays loolu mooy. may suñu compétitivité mu am valeur. alors monsieur Diouf nan nga comprendre wax Abdoulaye Wade bi ne. Euh, Macky Sall par exemple bu faloo parce que moom lay wax ak de manière directe ou indirecte parce que bu ne boo leen bu ñaar desee mu ne boo leen falee keneen deux mois fonctionnaire yi dootuñu président boo xam ne wone na désespoir am tey jii soo taxawee ne waa Matam dootuma leen defal benn projet déjà projet sax amul Matam ngeen ne soo leen falee. Macky mhm. Sall damay arrêté projet yi. Mhm. dootuma leen defal li defal ma la mais loolu lan moo ko indi désespoir mooy dem di saraxu ndigal li dem donc fi mu nekk. le mhm. président xam ne ne jeexal na. le président ak képp koo xam ne. ànd naag moom xam nañ ne jeexal nañu sénégalais yi dañ leen wëlbatiku 2000 bii nga xam ne Abdou Diouf a ngi dem au moins amoon na 41 xaw la xaw ma 42 pour cent mais ban président moo yore état mais attention li xew premier tour dafa garaw ban président moo yore état avec tous ses pouvoirs surtout nga xam ne Sénégal te jii ci domaine corruption jël na ndaare 70e place la jël ba nga xam ne Gambie moo ñu raw léegi ci indice de corruption bi. Mali moo ñu raw ci indice de corruption yi te euh, Burkina Faso moo ñu raw ci indice de corruption yi. Mhm. mais ndax lan parce que fii la ñu gisee au Sénégal en Afrique dans le monde un président buy jël mallette di ko jox un fonctionnaire international ngir affaire guerre fii rek lañ ko gisee au Sénégal mais yii nag moo tax sénégalais yi du ñu fàtte attention ku yaakaar ne sénégalais yi c'est des naïfs je pense que wone nañu encore une fois. le 26 février passé que ce sont pas des naïfs du ay dof. Ah. alors su euh, ma jox euh, ma joxaale la benn laaj nga ah, continuer sur le système éducatif on a vu que pratiquement. Uh-huh. yaa ngi leen wax réalisation yi. Uh-huh. mais l'université va tout droit. Uh-huh. vers une les écoles aussi bërki dimanche ou samedi. gis nañ ne booy yi eh, les élèves ñu ngi doon organiser benn manifestation. donc je veux que quelque part est-ce que aussi bi ñu wax ne 40 pour cent du budget. sont consacrés. à l'éducation que l'éducation se trouve à ce niveau est-ce qu'il y a c'est pas un échec waaw mais balaa ma lay tontu ci loolu mhm. euh, effectivement am nga éducation tey nii investir nañ ci mais li ma wax rek la demande bi elle est très forte d'accord cas nga xam ni tey nii recensé nañ ko au niveau de l'université dafa am lu def loo xam ni amu fi woon avant mhm. tey nii généraliser bourse ak aide amu fi woon délocaliser possibilité ku dëkk ci euh, zone rurale yi nga mën a jàngee fu jege fa nga dëkk donc loolu yëpp ay solution la yoo xam ni day permettre aux Sénégalais lambda de pouvoir def ay études comme ñëpp maintenant milieu scolaire bi defe naa ni Pape Alé ak sëñ Diouf mii ma jàkkaar loolu xam na ni c'est hyper politisé hyper politisé donc li ma doon wax sànq ci affaire boo xoolee enseignants yu bare ils appartiennent à la LD wala PIT. ah donc c'est des grèves politiques. politique la comme ñii di opposé wu parce que circonstanciellement contexte électoral ku nekk day yéegal niveau yi mais xoolal ñaata revendication la ñu déposé woon seen plateforme boobu enseignants yi 60 la woon xaw ma 58 yi état bi satisfaire ko mu des ñaar ñaari gars yi dañu ciy langaamu même Macky sax nee leen arrêté leen ba élection yi passé donc aujourd'hui man je pense que ni seen esprit de responsabilité leen pousse ñu bañ a jël en otage ay étudiants yoo xam ne dañuy jàng pour seen xam-xam gën gën a jëm kanam beneen bi mooy bu ne échec la élection yoo xam ni Abdoulaye Wade moo ci ñëw ca kanam man loolu dafa ma li tax échec bi mu wax ni am na un d' abord pour man amul lecture politique bu baax parce que du échec ñu ñoo nekk ci kanam pour ku ñu waxoon ni du nekk candidat deuxièmement peuple bi débat boobu war nañ ko mën a clôturer valider na définitivement la candidature du Wade de Wade parce que moom la jiital ca kanam beneen ba mooy lu nga fay ay dit wala xaw ma nga leen neexal xaw ma leen instrumentaliser. chaque jour ñu woote place de l'indépendance taal ay pneu taal ay table lakk ay kii responsabilité opposition bi la ñoom ñoo bloqué woon dëkk bi pendant tout ce temps là moo tax déjà moo expliqué taux d'abstention bu am solo bi moo expliqué situation bi ni mu demee mais bu doon élection yoo xam ni c'était dans la sérénité su doon élection yoo xam ni ay démocrate dañ ko seqal dem nañ ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel joxe na résultat kan mooy jiitu kan moo war a nekk candidat ou pas à partir de là jeex na léegi nag peuple bi ci boppam confirmé na suñu candidature parce que ñun la def ci kanam maanaam je pense que ni débat boobu war nañ ko mën a léegi nag bu ñu demee nag créer violence ci dëkk bi ba mu demee ni loolu moo tax résultat bi mu am nekk 35 mais est-ce que violence sax c'est pas prémédité parce que bon Euh, soutenir un candidat n'est pas forcément brandir des gourdins parce que il a préf il préfère que dans les urnes on met des bulletins pas waaw mais déglu ma la dama ñu la. ku nekk da ngay def sa politique ak sa façon. da ngay dem ca kayore guddaay nga laaj ko lu tax mu def loolu mais mën naa la tontu ci li nga xam ne ñun ñoo koy def. li ma la mën a tontu mooy ñun ay démocrate lañu parce que avant Abdoulaye Wade di déposer candidature am na bu ko conseil constitutionnel bi nee sa candidature valable daf koy retirer wax na ko donc bi conseil constitutionnel bi confirmer candidature ñoom mënoon nañu reconnaître la justice mënuñu nekk ci benn dëkk nag sànq nee na corruption ñun ñooy ndaare avant ndaare de contrôle et de bonne yi fi am moo fi indi lutte contre la concussion moo fi indi eh, société kii yëpp structures yi def yëpp ñooñu ñoo war a def seen liggéey et la justice doit faire son travail c'est tout. très bien euh, euh dégg nga li mu wax ci kër bi nee na organes yëpp def nañ ko fi et puis sur la violence aussi. xam nga Pape soo xoolee bi ñu commencé campagne électorale bi ba léegi mosoo dégg benn candidat bu yëkkati xeer wala bant ñu ne la gaaj ne koo xam ne ci Ablaye Wade la jóge ñi fi faatu yëpp seen bakkan police bi moo leen faatu. justement am na ku leen posé question ñu ne est-ce que yéen boo leen ñëwee di ngeen ci Twitter bi la ko wax ne di ngeen di ngeen ubbi benn commission pour éclairer les Sénégalais. loolu la ñu njëkk a def enquête yi nga xam ne ñoom ñi fi faatu.